xoola buuse ko jëm ñëw na jéy sàmb jéy buuse wàcc ne ñëw na mbokk internet du Sénégal Balla wàcc na Balla wàcc na jéey wàccal Balla Gaye dee ngi nii laa Balla Balla Gaye ngoog jéey mbokki internet du Sénégal 7 tey fii la ñëwoon ak ci Balla Gaye 2 doomu Casamance doomu géejawaay Balla Gaye 2 ngi noonu fi mooy këram ay fansam kontaan nañ ay fansam kontaan nañ ñu ngi jubilé depuis ci ba Balla Gaye daanee ba léegi kenn noppiwul ñëpp a ngi yuuxu ñi naan dañ koo namoon laa lekkul naanul toogul deful dara Boucher nii ànd ak Balla yóbbu Balla Balla ñëw indi ndam li Boucher tey loo yëg maa leen di siyaar maa leen di béggee ñëpp maa jox seen wàccuwaay waaw tey Boucher dañ laa gis détermination détermination xam nga waxee nga xam fu ci fulla gi Boucher ci jom Boucher ci fay gi dara nangu dara jege Balla mu yóbbu Balla indi ndam noonu lay demee waat ci yu bari incha allah rabbi nekk nii dañu merci merci loolu waaw ah, nit da mën sa nit ñun amuñu lu dul suñu nit yàlla suturaal nañu Serigne Touba dimbali ñu ñu am ndam waaw dañuy waajal màggal gi bu baax dañu waajal màggal gi ak mbégte ndax lépp lu ñu kontaan rek ci màggal gi lañ koy wane incha allah dañu waajal màggal gis tey waaw ñu mais Balla ñun ñooy fanaan ñooy lekk ñooy naan ñooy nekk chaque jour 24 heures sur 24 kon loolu du ma si tontu koo xam ne yaay nekk moom chaque jour moom nañ bàyyi ñuy gis rek li ci kanam raw li bët incha ma laaj daa daw sukk benn oom di jël tànk bi ngir di jéem a rasu mu xëcc tànk bi boole ko loos daw busulu ko. loolu mooy bisu dama ne bu xaayee ñor na dama ne bu xaayee ñor na Gris baa ngaa ngemboo samraer ci àddina daa mel ni Balla sama question mooy daa mel da la mel dafa bëgg yi waaw góor dafa bëgg di duma ba pare moo ko yàggal sax Balla moo yàggal combat bi de mais combat bi deux secondes la waroon jeex deux secondes mais Balla moo bëgg loo xam ni spectacle ay xeex dóor la ba nga dee loolu la bëgg mais moom moo waroon jeexal làmb ci mais yi di ñëw moo dàq incha allah. jërëjëf non question mën na koo dem mën na koo dem mën na koo dem question mën na koo dem. Ndiago Balla Gaye bi dama ne la Ndiago Balla Gaye bi ku ko jël da ngaa def loolu neex ñun amul lu dul Balla Gaye ñun géejawaay lañ am ñun amul lu dul géejawaay Balla daf ñëw sigil. géejawaay ne amul mbër bu ndaw amul guy gi amul Lac de Guiers amul pambaay amul kenn ay mbër yu mag rek a fi am ndam yàlla bu mu géej géejawaay yàlla bu ndam géej géejawaay yàlla bu ndam géej géejawaay ci kàttanu yàlla sunu borom. ñu ngi lay jaajëfal. Sa Thiès Sa Thiès looy wax àdduna tey. sa sa ngi noonu. Balla Gaye 2. Lion de Guédiawaye baa ngi Falla ngi noonu. Falla may ñaari baat. si suuf lay wax si suuf lay wax si suuf lay wax si suuf. Falla ngi noonu. saafanteeg waajuram ak waa këram. yàgg na tuuti. Ah, maa ngi lay siyaar ngi euh, si maa ngi leen maa ngi leen maa ngi leen maa ngi leen di nuyu. Ah, leen remercier yéen ci yaa ngi xam li di daj mais ñun nekk ci média xam nañ li ngeen di daj. yàlla na leen yàlla taxaw bu baax. waaw ku ci nekk fi nga bëgg a yegg yaa xam yàlla na la yàlla jàppale tey nag noonu la mënoon demee waa Omar tey moom mënul woon daanu nag wax dëgg neex yàlla tey moom mënul woon daanu yéen sax Omar ngeen faraloon tey moom mënul woon daanu waaw ah, tey moom nii rek la mënoon demee. Mhm. Mhm. Mhm. mais man moo ma tiital Omar moo moom moo ñu yóbbee foofu yëpp bu ko teeloon jàpp ñu ñibbi loolu wóorul bu mu ko defati. man bëgguma loolu moo leen dàq bëre bu ko teeloon jàpp ñibbi nañ bi jaru woon sa xeex bu metti bi billaahi bu ko teeloon jàpp ñu ñibbi moo leen dàq bëre bëre dafa ne moom waaw mais dafa di guerrier nag boo ko dóoree day fayu waaw bëgg ay ñàkkanteeg yooyu noonu mais man xamoon naa ni bu ko jàppee ñu ñibbi billaahi wallaahi ta tiitoon naa tuuti nag damay wax dëgg mais nag wóolu naa Omar ah <laughs> waaw waaw mais noonu waaw mais mais gis nga gis nga gis nga giri moo tax gis nga ñaan baax na de ñaanu waaju tey giri ku xool ni mu ñëwee nga xam ne ñëwul woon pour ñàkk de waaw mais Omar yàlla xolam parfois da ko xam xol mën na ci génnee nit yàlla xolam na ah yaram bi yàqu na ah, tey après bi mu délivré li nga xamante ne moom victoire am solo bi lan ngay tontu mais mais Gris Bordeaux nit a koy doog a daan toog ci kawam ñi ko daan ñëpp musul am ku jeexal di nga ku jeexal di nga toog échanger coups yi coups yi ñii toog fii di seetaan ñu wax kuñ ko ci dóoroon nga wàcc liggéey coups mu jël jeexal na ñi ci des Omar nañ dem Omar fi balaa ngaa gisaat jëlam dina yéex de Omar mi moytul ma nit bu am moytul ma nit bu am jom ba noppi am ñaanu waajur Omar dafa am jom noppi am ñaanu waajur. baag Serigne Touba ñaari ñaari contrat yoo xamante ni war na ko euh, régler muy euh, digganteem ak Boy Niang numéro 2 di ndaanaan doomu Pikine bi ak digganteem Eumeu Sène muy revanche. mais combat bi moo indi loolu yëpp tey bu Omar ñaanu ma ko yàlla tey bu Omar daanu woon yi si des nuñ koy dundee day métti mais tey lii may na ko doole joo xam ni. bii Omar wóor na ma suba day xëy dem entraîné jiwaat ah Omar ni mu bëgg mel dëgg sax des na de des na booy ñaa booy ñaa bu ko Omar jàppee nga xam ni Omar Omar bu wéree dara jotu ko ñii ñëpp moo leen mën. mais Saliou mu gis day daa génn xadar. waaw gëdd yëngal bopp bi dugg jota bi dem. waaye bi muy ñibbi si daa ñëw ba ci buntu ah, dafa diis nag ah nooy def noonu rek mënoo ci dara lamb diis rek lamb. làmb ak bagage sama xabtal yeeg yooyu làmb dafa metti waaw làmb ki daanu sax dee leen ko félicité ki daanu sax dee leen ko encouragé làmb metti làmb dafa metti mbooloo mi yëpp joxoo leen ñu lekk joxoo leen ñu naan ñuy yuuxu fii gënoo leen waaw làmb dafa metti noonu rek la demee moo tax xam naa xolam fees